bisimilah maa a commencé jàng ci tur yàlla arahmaan yàlla mu yërëm mi ne fépp ci àddina arahim yàlla mu yërëm jaam ñu ko soob ci àllaaxira alhamdu mboolem xaaj cant yi ñeent lillaahi ñeel na yàlla rabbil alamin kay borom mbindee fi de ñeenti façon cant moo am yëpp moom yàlla mi nga ne mooy borom mbindee fi wasalaatu xewal wasalaam ak mucc ala sayidina yàlla nekk suñu sang muhammadin muhammad waala ali ak ñoñam waa saabi ak wataa bi nag way topp lu mu ñeen leen beexsaanin ci rafetal ilaa yawmi ba kër bis penc ku topp saaba yeeg yonent bi ak ñooñ yonent bi ci jëf ju rafet ba bis penc yàlla xewal mu ci nekk ci yow amma baadu gannaaw ma sant yàlla <coughs> julli ci yonent bi fa yaqulu muy wax Ousmane Ousmane bun Abi Bakrin doomu Aboubacar bun Xasan doomu Xasan aljanniyu kay ka jóg janniyu aslan ci cosaan janniyu moo di cosaanam waaye nag al fulumaani kay ka jóg fulumaani mawlidan ci juddu bu dee juddu daal fulumaani la juddoo al bamakiyu kay ka jóg bamakiyu mawti nañ ci dëkk waaye fa mu dëkk nag bamakiyu la nit dana cosaanoo dëkk juddoowut fa dana juddoo ci dëkk te fa moom nag janniyu la cosaanoo fulumaani la juddoo bamakiyu la dëkk mu ne xat jamatu dajale naa هذه الآيات هي الآية والأحاديث أحاديث الصحيحة يوري في ترغيب في قمم لو وترهيب رجل لو طلبا غير كل صواب يلا يلا من دجلنا آية القرآن أحاديث يي خاني موم جاب na lu wér la muy ñaax nit ki pour mu xemam lislaam yenn yi di ko ragal loo pour mu ragal mooy yàlla nee na li tax ma def ko mooy sàkku yoorub yàlla di léegi mën ngaa gis ay xadis ci téeréem bi yuñ jam waaye pour moom wér na dégg yonent bi waxul kenn xaddi sàngam wérut wala alquran yaay borom xam-xam ñooy def ijtihaad rek kii ne wér na kii ne wér yàlla rek xam waqat sax wér na an rasulullah jële si yonent bi sallallahu alayhi wasallam andoone moom xaala wax na li ali ñeel ali radiyallahu anhu yàlla ko yàlla gërëm nee na yonent bi wax na ali ibn abi talib ne ko fa wallahi maa ngi gën ci yàlla laan yahdiya mu jubal allah yàlla bi ka ci yow rajulan waahidan benn góor xayrun moo gën min xumrin naamin ci gërëm yu xonq yi gërëm yu xonq yi ñooy gërëm yi ñu gënoon a fonk ñoom ci jamono boobu bu doon tay nga ne moo gën ay milliards ndax nit ñi ay defe naa ne mooy alal a bëri ci ñoom wala boog bokk na ci lu gën a bëri daal dégg nga su ko defee nag yonentu dafa koo bëggoon a xamal ne ko yàlla gindi ci yow benn nit ba mu moo gën xewal yi gën a foor gërëm yu xonq yi ni mu foor yàlla jubal ci yow benn nit moo ko gën bu doon nga ne milliards lu mu foor yàlla jubal ci benn nit moo gën وسميت تدينا الكتاب التربي بغية المسلمين ساكوتي في جريدني مويلي جريدني جي ساك وكفاية الواعزين تتربو دوي نيواري لا والمتعزين عن نيوارو بلي لنا بغو وارو تتربو دوينا بلي لنا بغو وارا تتربو دوينا تيرو أمسول نك رواتنا بفكة دنا موكل لش نيو يب ndax danaka danaka mawdu yu bari tem yu bari ennese ay hadith yu bari imagine bo moko hadith yu bo demé ci barap ñu la waxal ci tem sangam doo soxla sax dem bindaat li sa bopp bi rek doy na addis yooyu boo ko leeralee rek mu doy waxtaan ndax yonentu thème bu nekk moo ci gën a xam wax ci xam-xam wax ci sëy la wax ci xaqi jëkkër wala xaqi jabar ak yeneen ak yeneen ak yooyu bu fekkee mokkal nga ko ah, yow doo soxla di bind ay thèmes yu bëri li nekk sa bopp bi doy la ko tuddee waat lu maa ngi saako mi man ci ki nga xam ne asuma asuna rafet na xiimu jikkoom wala boog bindareem ni ko yàlla bindee bu rafet na bu jikkoom rafet na wasali ma mucc min daayil xasadi ci jàngoro añaan adi moo deram maa ngi sàkku ci koo xam ni yàlla bind na ko bind boo xam ne jikko bu rafet la yore mucc na ci añaan an yan zoro mu xool téere bi bi ay nir ridaa ci bëtam ngërmaande wa insaaf ak maandu bëtam ngërmaande mooy la cee lu rafet na nga ko rafetlu bëtëm maandu mooy la cee njuumte na nga ko corriger rek bi adabin te bañ koo corriger façon corriger boo xam ne da nga bëgg nit ñi far ba téere bi benn yoon te li baax si téere bi bëri na fuuf lool boo amee njumte it yenn yenn la laa bi ay ni suxti waaye bu xool bëtam ŋàññ ñi wala intiqaad ak critique bu dee yow loo ci critique rek nga bëgg xool bëggoo cee xool lu baax doo wax ci téere bi lu baax da koy dawloo nit ñi te fekk njariñ la bu dee da nga koo xool bëtam koo xam ne bëggoo waa ji taarif téere bi it doo ci wax lu baax mu ne bul ko xool bët boobu wa billaahi ci yàlla astaanu laay dimbandikoo wa alayhi ci yàlla dong ata wakilu laay wakilu wa ilayhi jëm ci yàlla dong uni bu laay dellu yàlla laay dimbandikoo ci téere bi ba mat moom laay wakilu te ci moom laay dellu faayidatun li am njëriñ la dafa indi ay ay njëriñ balaa muy continuer mu ne qaala wana ataaw bun yasaar ataaw doomu yasaar ne adadu suwari alquraan lii mu saare alquraan yi mi atun téeméer la wa arba asra fukk ak ñeent suuratan si saar saare alquran yi ñaata la téeméeri saar ak fukk ak ñeent cent quatorze cent quatorze mooy saare wa adadu aayaat yi lii mu aaye yeneen ñuy mokkal sittatu alaafin juróom benn junni la wa miataani ak ñaar téeméer wa sittun ak juróom benn wa salaasoon ak fanweer aayatan ci ay aaye aaye alquran ñaata la mu ne juróom benn junne ak ñaar téeméeri ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn muy six mille deux cent trente six juróom-benn junne ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn aaya la dégg nga waxee wax naa adadu aayaat yi lii mu aaya yi sittatu alaafin juróom-benn junne la wa sittu mi atin ak juróom-benn téeméer wa sittu nag juróom-benn wa sittu nag juróom-fukk aaya ci aaya parce que léegi-léegi am loo xam ne ñii ñaari aaya lañ ko def ñii def ko benn aaya loolu tax wutee bi di am. am na ñu ne aay yi juróom-benn junni la ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk juróom-benn muy six mille six cent soixante six aaya hmm? waaradu kalimaat yi lii mu baadi sabun juróom-ñaar la watti ak juróom-ñeent fukk alfan ci junne waar boobu meeyatina ak ñeenti téeméer dégg nga ak ñeenti téeméer watti soon ak juróom-ñeent wasalaasuun ak fanweer kalimatan ci baat baati alquran yi ñaata la mu ne juróom-ñeent fukki junni la ak juróom-ñaar sabon wati juróom-ñeent fukki junni ak juróom-ñaari baat ak ñeenti téem juróom-ñaari junni juróom-ñeent fukki junni ak juróom-ñaar junni ci ay baat ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent muy 97 439 baat wa adadu xaruuf yi lii mu xaraf yi salaasu miati alfin ñetti téeméer yi junne la xarfan xarfin ci xaraf وسلاسل عصرة وسلاسل نيتكون ويسون نيارفك ألف حروف في نتي جنة حرف وخمسة عصرة ألف حرفا أكفك حرف جرم حرف القرآن نيت تيميري <laughs> جنة حرف لا أك نيارفك جنة أك نيت أكفك حرف جرم دينغ سوغرافي مونيك 323 015 300 vingt trois mille quinze mooy ñetti téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñetti junne ak fukki juróom ala sax yi ci wax ju gën a wér tam ma mat tombi alquran tombi alquran yi mu ne mi attu alfin téeméeri junné la wati sawna wati santun ak juróom-ñeent wa sabuna ak juróom alfan ci junne ak juróom-ñeenti téeméer wasalaasatun ak ñett wa arboon ak ñeent fukk tombi xaraf yi téeméeri la ak juróom-ñaar fukki junne ak juróom-ñeent ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett muy lan muy cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quarante-trois euh, wax tomb waa cent tomb loo am ci alxuraan moy témer junne ak juróom-ñaar fukk junne ak juróom-ñeent ak juróom-ñeenti témer ak ñeent fukk ak ñett ci ay tomb chakalaatu maske alquran yi salaasu miatin ñetti la alfin ci junne ñetti témer junne la waa ak benn waar boon ak ñeent fukk alfan ci junne ñetti témer junne ak ñeent fukk junne ak benn ci ay maska wu miatun ak témer wa samaanin ak juróom-ñett waaye solo ak ñaar fukk nga teg ci téeméer ak ñaar fukk juróom-ñett ñetti téeméeri junne ñeent fukk ak benn ci ay ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett moom la masque yi al arabi kii alquran am masque yi loolu mooy trois cent quarante et mille cent vingt huit trois cent quarante et un mille cent vingt huit masque loolu la am mooy ñetti téeméeri junne ak ñeent fukki junne ak benn ak téeméer ak ñaar fukki juróom-ñett ci ay tomb ñeem fi ani suyuti jëye nañ si suyuti wujubu maarifati laahi war a xam yàlla taala kawe na wa maarifati rasulillahi ak xam yonent yàlla bi yàlla yàlla nekk si moom asalaatu xéwal wa salaam ak mucc suyuti nee yàlla dañ ko war a xam yonent ko war a xam lan mooy tekk ne yàlla da nga ko war a xam mooy xaala wax na allah yàlla tabaaraka bërni wa taala ka wene faalam xamal annoo li am ba am laa ilaaha amul benn buur mu war a jaamu jaamu ko di jëriñ ñàkk jaamu ko di looy illallah lu ma yàlla xamal laa ilaaha illa yàlla waxut xul laa ilaaha illa waxal laa ilaaha illa da nga xam ko la wax kon yàlla dañ ko war a xam wastaxfir nga jéggalul li zam bi ka ñeel sa bakkaar wala moom ne nga jéggalul jullit ñu góor ñi wala moom ne ak jullit ñu jigéen ñi لولا يالا سنت يونتي سوره محمد وقال وانا تعالى يالا مكون قل وقال هو موم الله يالا احد كان لا يالا مو خمل بوم سي القران سو فكون ورين كو خمم دو خمل نينا موم كان لا الله يالا الصمد موي كوني جوبلو سيني بويم اديو لم يريد جور كان ولم يرد جورين كو ولم يكن نيكو لو ديكو نيان كوفا ناولي احد كان كان دو ناولم كان هيموت موم سي دارا naa bañ a yéeg nag moo tax ma ko firi bu gàtt kooku suñu yeexee da ngay firi mu ne yaa ngi yéeg wa qaala wana taala yàlla mu ko ne muhammadu muhammad rasulullah yonumtu yàlla la wala dina ñi nga xam ne maawu ñu ngi ànd ak moom ashiddaa way tat lañ alal kuffaari ci xéeféer yi waaye ruxamaa way yërëmante lañ seen diggante yàlla moo xam ne yonent bi kon ko war a xam muhammad yonumtu yàlla ñi ànd ak moom luñ mel ay nit lañ yoo xam ne nii dañoo tat ci xéeféer yi amuñ benn yërmande ci xéeféer waaye dañoo bëri yërmande seen biir sootu muhammad sootul fati la وفي حديث القدسي نكنا في حديث القدسي حديث القدسي ما حديث إنك خمدي الله كوه بارين عن نين يرنتي مكرب يلا لين فاعرفوني قم لين ما قبل أن تعبدوني جك نين ما يجامو فإن لم يعرفوني بني ما خمون يوم جامي فكيف يعبدوني نكلين ما يجامو قم لين ما نين دور ما يجامو سوف يكين يوم خمون ما ها نين ما يجامو كوه خمون نو كيجامو إن أريد الإسلام استرنت ما توفيق إلا بالله عليه توكل توري أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته annax yu tere ani shirk ci bokkaale bunt bi njëkk a jàng dafay tere bokkaale def na lu am solo nag parce que lim la njëkk a jàngal mooy tawxiid wéetal yàlla indi laa alquran yi wane yàlla da nga ko war a xam ak hadis yi wane yonent sallallahu alayhi wasallam dañ ko war a xam eh, yàlla dañ ko war a xam yonent dañ ko war a xam indi la si ay hadis qudsi mu pare mu lay jàngal nag aay yi ne bokkaale dañ koo tere tawxiid dañ koo digle waaye bokkaale dañ koo tere an nax yu tere ani shirki si bokkaale qaala woon allah yàlla taala kawe na ne inna laa naka yàlla laa yaxfiru du jéggale mukk an yusraka bañ bokkaaleeg bii moom wa yaxfiru dana jéggale maa doona zaalika dul bokkaale li shaaw ñeel jaam bu ko yàlla du jéggal ku koy bokkaale waaye képp koo xam ni lépp lu dul bokkaale yàlla man na ko jéggale bokkaale moom yàlla du ko jéggale waaye lu dul bokkaale yàlla dana ko jéggale luy loolu ak looy wax waa ji la ne yàlla bàkkaar yëpp lay jéggale yàlla bu ñu waxee du jéggale bokkaale mooy boo ko deyaalee waaye fekk yaa ngi dund bàkkaar boo mën a am rek boo tuubee yàlla jéggal kon yàlla dana jéggale bàkkaar yépp waaye ku deyaale beneen bakkaar bu dul bokkaale te tuubul ko yàlla mën na ko jéggal amma bokkaale moom ku ko deyaale tuuboo ko avant ngay dee yàlla dul ko jéggal yàlla ni si yàlla musal sootu nisaa وقال وانا تعالى يعلم من إنه نكريان بام من يشرك بوكال بالله يلا فقد حرم حراما الله يلا عليه موم الجنة الجنة ومأواه تتبوايم النار مود سفرة وما للظالمين الدنيا تونكري من أنصار ci way tere mbugalam yàlla maanaam way dimbale yu leen di dimbale ba mbugalam yàlla dal seen kaw loolu mënul am yàlla nee na ku bokkaale yàlla aljina xaraam te safara la jëm te bokkaale kat yooyu nga xam ne ay tooñkat lañ amul kenn ku leen mën dimbale ba safara du leen lakk yàlla incha allah musal yàlla nag man toujours damay wax ne kenn ñemewut ko yàlla kenn ñemewu ko dañoo jàkkaarloo gudd mbugalam rek koo xam ne ni gaynde sax bu la xooxutale nga daw hmm. nga ñemee yàlla li nekk ci gaynde yàllaa ko ci def di safara bu taxawee fii. jëmale si si la nar laa lakk nga daw noo ñemee yàlla tàngoor bi nekk safara du yàllaa ko ci def buñ la dóoree ab xet nga moytu ko daw parce que ñemoo mu dal sa kaw ku ñemewut ab xet nooy ñemee yàlla te xet bi ba fa nekk yàllaa ko ci teg yàlla kenn ñemoo ko ku la wax ne ñeme ne yàlla waxut dëgg ak mbugalam yàlla rek dafa jàkkaarloo gut ak mbugal ma waaye ñemewu ko mais ku jàkkaarloog mbugalam yàlla boo bonoon da yàlla incha allah musal yàlla àddina këf yàlla bu ñu àddina këf yàlla bu ñu ah. yàlla ñooñu àddina këf sootu yàlla na yàlla gëm yàlla wa qaala wax na rasulullah yonent yàlla bi sall yàlla doolu doolu ko musal yonent bi hmm. duma leen xibaar bi akbaril kabaayir ci bakkaar yi gën a màgg salaasa ñetti yoon yonent bi def ne mënax du ma leen xibaar bakkaar yi gën a màgg mënax du ma leen xibaar bakkaar yi gën a màgg mënax du ma leen xibaar yi gën a màgg ba mu kon li muy wax yitteel na ko xaalu ñu ne ko balaa ankay yaa rasulallah yonent yàlla soxla nañ nga ñu bakkaar yi gën a màgg ndax ku ne war na koo xam ngir moytu ko xaal yonent bi ne al bokkaale billaahi ci yàlla wa xuququl walidayni ak dëngee ñaari waajur loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nee na bàkkaar yi gën a màgg bokk na ci bokkaale yàlla moo ci njëkk sax bokkaale yàlla nag bi ci gën a mag mooy jaamu leneen lu yàlla wala place ba nga waroon a teg yàlla nga teg fa mbindeef loolu mooy bokkaale yàlla bind ni ñi nga ne bind bokkaale nga yàlla yàlla moom moom nit ñuy war a diwaleen moom yow nga nit ñi jaamam diw te fekk jaamam yàlla leen kooku bokkaale yàlla incha allah mos moom xuqul waal ak dëngee ñaari waajur dëngee ñaari waajur ci bàkkaar yi gën a mag la bokk luy loolu mooy lépp loo xam ne dafay naqari ñaari waajur di leen lor rek te du dëgg soo ko defee rek dëngee nga sa ñaari waajur bàyyi xel loolu su fekkee nag julli ngay julli tusubaa tàkkusaan timis gaye loolu moo naqari si ñaari waajur loolu dëngee ñaari waajur parce que ñaari xaq dajee xaq yàlla ak xaq jaam xaq yàlla gën a foor su fekkee gëm gi nga gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala topp gi nga topp njàngaleem yi nga xam ne mënoo koo ñàkk topp loolu moo naqari waajur yi loolu du dangay ñaari waajur ndax xaq yàlla ak xaq jaam ñoo dajee te xaq yàlla gën a fort yàlla la ñuy topp waaye nag su dee lii yàlla may na la ci liba te lu la neex nga def sa waajur na la bul def bële defal bii nga bañ dem def loo xam ne aaya na la ko hmm? ba xol ba tàng yow dëngee nga ko danaa bëgg a dem dëkk sàngam tukki waajur bi nee na bul dem foofu toogal fii nga ne force nag damay dem dëkk boobu ba sa waajur xolam tàng ma ne dëngee ko daf laa diggal defal jëf sàngam ak lu mu mën a doon nga bañ xol ba di metti dëngee ko daf la wax dara nga yuuxu ko dëngee ko dégg nga dangaa xool li ko gën a naqari mooy jëf bon yi nga xam ni saa yu ko nit defee xol baa ngi tàng yow nga dëkk ci rek te sa waajur loolu la gën a bañ dëngee ngeen ko lépp luy tàngal xolu waajur dëngee waajur la ba mu des topp yàlla ak yonentu kon gannaaw boo joxe yàlla la moom jox yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam la moom teg si waajur xaqi waajur yàlla foral la ki la ëmb ñaata weer juróom-ñeenti weer du ñëpp nag juróom-ñeenti wala la ñuy ëmb nga ëmb mën naa ma am juróom-benn weer sax waaye daal coono bi ci ëmb yàlla ya, rek moo xam num toll mu ngi boole néew doole gémmañ nga changé yaram bi di métti bakkanam sax mën na cee xaj parce que bëri na ñu bëri ci loolu la seen bakkan des mu ngi ak ya, yow ya, rek nga nekk ci biiram bi rek di ko sonal wéq lu ne nga def. dem ba juddu jot am doom nga it métti gi metti yàlla rek xam nu toll yàlla teg ko ko moom ba mu la juree ngay xale bu ndaw lakkale mën a góor dara mu téela di la nàmpal ci weenam fu mu jëm takkoog yow mbuus sax laa la wax ne boo ko joxoon am nit ne ko mbuus gi foo jëm yóbbaale ko ba yàggee mbuus gi lakkal ko mu sànni ko nga téye nit koo xam ne dana puub sa kaw ngeen baal ma ci kàddu gi tuur sa ndox hmm? di jooy guddi doo mën a nelaw nga di ko nax di ko boot di ko toppatoo di ko yar ba màgg loo am ci lu baax jox ko ko bari yéene ko nag lu ne nag lu ne lu lu baax lu ne ci àdduna sa yaay yéene la ko nga dem ba màgg defoo dara lu mooy di ko jooy lool day ñàkk ngor loolu mooy ñàkk ngor pire ñaanaloo ko yàlla dimbalewoo ko toppatoo ko waxoo ko lu ko neex waaye nag di ko teg lu ko naqari ak lii mu daj ci yow xanaa nit rek bu fekkoon ne daf laa bëgg yéene lu baax rek foo ko gis xanaa nga war ko teral ndax yéene ji mu am ci yow rawatina koo xam ne daf laa boole yéene lu baax waaye jëfal la lu baax ba ba tey boo mënee taxaw di jëf mooma parce que si moom la ko yàlla jaarale te yonentu daf ne ku dul sant nit doo sant yàlla kon boo santul sa ñaari waajur boo sant yàlla yàlla bëggut parce que lépp loo amatu ci àdduna rek sa ñaari moo tax Ibnu Abbas danañ ko jàng def na ñaari yàlla daf leen lëkkale mooy sant yàlla ak ñaari waajur anushkur lii wa li waalidayka sant ma waaye sant la si ñaari waajur waaw gis nga gërëm say waajur si xéwal gi la yàlla defal alxuraan ko santaan def gannaaw boo sant yàlla ba pare teg si sa ñaari waajur boo ko defut yàlla bëggut parce que dafay xam ne ku ñàkk ngor nga yow loo mën a am ci àddina rek benn jëf ju rafet la si sa jëfi waajur yi ñoo la toppatoo ba nga mën a am loolu muy xam-xam ñoo la fa jaarale buñ la buñ la juróon sànni la wala ñu jur la xooñ la nga dee wala ñu jur la duñ la nàmpal wala duñ la dundal doo doo da dee ki tax na nga màgg ba am dara kay kooku kooku waroo ko fàtte waajur mooy loo xam ne même bu fekkee xeeveer la sax xeeveer la sax ndeysaan da nga ko war a baax da ngaa war a baaxee say waay ñaari waajur di la bidaakat lañ danga wara baxé sé ñaari wajur di la ay hefer lañ danga wara baxé sé ñaari wajur di la ay katchor rek na yalla daf ne wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan na nga rek ñom ci aduna ci ñek lu bax rek mo la war sa digënté mo ñom di la ñoom lay def dafa metti yow lu bax mo la war sa digënté mo ñom li orof di wax nak dëgg la nee wajur nen la bo dal doj la yow ngay nen bo dalé ci kawam toj bu dalé sa kaw nga toj waaye la de bu fekkee tooñ na la yow li nga war def mooy ñaanal ko yàlla loolu yàlla bugg ko yàlla topp parce que moo la dimbale ba nga mën a màgg bañ man laa tooñ waaye soo ko tooñee moom yàlla yàllaa koy jëlal boppam moom fayakul ko boppam waaw yàllaa koy fayakul boppam te sax dañu jàng xadis boobu ci karam yàlla def ne dëngee ñaari waajur xaarewuma ko àllaaxira fii laa koy faye fii fii fi motax tax ñaareel kuy dënga ñaar waajuram bala muy dé da koy gis yàlla si yàlla mosal soo bëggee am ngeen yërmaande ñaar waajur rek defal julli go julli nga jang juroom ben ikhlas yéene ko sa bop jang juroom ben ikhlas yéene ko sa yaay yalla dana la bindal ci yaa baab kuy baaxe ñaari waajuram parce que baax ñaar waajur yombut lila war seen diggante dafa bari kon defal loolu loolu li ci nekk ci teranga yalla rek xam nu mu toll nga defal leen ko yalla dana la bindal inshallah rabbi kuy baax ñaari waa juróom saa yu julee juróom benn lexlaas sa waajur bu góor juróom benn lexlaas sa waajur bu jigéen yonent bi def ne da nga baaxe yaay ñetti yoon door a wax baay mais bu ko woon sa baay nan ko sama yaay ma la gënal loolu it rek yow defal li nga war a def waaye ñoom ñaa ñëpp fonk leen ñoom ñaa ñëpp xormaa leen ñoom ñaa ñëpp ñaanal leen yàlla parce que alquran def na waqul rabbi rabbirhamhuma waqul waqul rabbirhamha xam xamhu yow yàlla yàlla nga leen yërëm ñoom ñaar man yàlla mooy rafetal kon ba nga leen ñaanal rafetal comme que yow mënoo rafetal ba matal rafetal ga ba nga leen ñaanal rafetal nag ne yàlla yow mi mën a rafetal hmm. rafetal la jëmee si ñaari waajur kama rabbayaani saxiran comme niñ ma doon topp tooba may ndaw da hmm. waajur kenn mënu ko kenn mënu koo fay kenn mënu koo fay bu demoon ba màgget nga di ko defal lépp xamal ne yow ba ngay xale moom i si loxoom nga nekkoon mu di la defal lépp te tey mbébét nga dund gudd fan yow nag ba muy màgg yaa ngi koy defal lépp waaye bu deewoon sanga jël bu deewoon sang jël hmm? kon waajuram googu ku ko dëngee yàlla dëngee la yàlla dëngee la muy mbugal la rek yonent naa ne si bàkkaar yi gën a màgg la la bokk ndeysaan yonent bi nag wa kaana nekkoon a mu takki andaaji sukkandiku ba muy wax loolu dafa sukkandiku woon fa jalasa mu daal di toog yaa ngi dégg de dafa sukkandiku di wax ak ndax duma leen xibaar bàkkaar yi gën a màgg ba muy ñett yoon ñu ne ko enquête ah, mu ne mooy bokkaale yàlla ak dëngee ñaari waajur daal di jug toog kon li mu bëgg a wax li ci bëgg a teg intéresse na ko fa xaal mu ne alaa yëgal dafa def xarfu tan bii yeete ألا موي بايل ولا قلب بره دور لا وحي من بغبا ألا يغل وقو زور أك وحي نار نار وحي بوزور موي وحي يقول دق ألا يغل وشهادة زور أك سيدة نار وحي نار مو غنى ياتو سيدة نار وحي نار موي وحي جو دق سيدة رو دق دقو نجي وحي جو دق دقو نجي موي تياخان رك بيب يقول جو خمنا تياخان لا تباكاري غنى مغلبوك تاخان بي گنا ماگ نك موي دولال يالا فنال يالا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه يالا نين كين داكو توغ كون را يالا اي اي اي نار فن نياونا رك سي گور واي فنال يالا مو گنا نياو يالا مي بين ييب نيو فنال كون ا ديمو كات جبريل داف ما نيو واخ ما نانغ ما نانغ ما نانغ ما نانغ fekk dara dara dara dara dikkul la gàcce la de ndax lan ndax rekk fiit poñetu àddina ci loxo nit ñi tax nga bëgg a wane yow am nga yàlla loo xam ne ni dara du ci dëkk fen wu bon ngoogu ci bakkaar yi gën a màgg la bokk bakkaar yi gën a màgg ci la bokk fenal yàlla feneen yàlla àdduna li yàlla bindoon ne moom ngay am ci wërsëg loolu rek ngay am nga jaay sa ngor ak nga teg sa tànk siraatul mustaqim li la yàlla dogaloon rek loolu rek ngay am kon bul feneen yàlla ba sànk sa la bokk na it ci fe ci fen yi gën a bon fen ci xam-xam waaw fen ci xam-xam ñëw rek ne man taarif naa téere sàngam téere sàngam fekk taarifu dara pour bëgg woon nit ñi am nga xam-xam hmm? léeg-léeg nga gis ko de léeg nga gis ko ne la taas naa téere man am naa ndeysaan benn waaye boo xam ne dañ leen waxtaan mu envoyé ma benn téere ne moo ko taalif moo ba ubbi téere bi ci laa xam uslub bu waa ji ak ni muy waxee ak ni muy gi ma xam naa leen taaliful ko mais téere bi ndeke beneen waaye moo ko taalif téere bi boo duggee góogul sax fekk ko mën koo télécharge wàcc ko bind nañ fa tur waajeeg lépp mu changé tur bi ne ma maa ko taarif te fekk la ma envoyé turu téere bi sax ñu ngi ko bind ci kaw ma ne ci yàlla xamu lu ko jar ci àddina dal leen rek leneen yàlla may wax leen lii ngeen am rek xam doomu aadama sax moom def du dara sax moom far hmm? kon nar lu bon la waaye rawatina nar ci diine wax lu dëgg ci diine gën a bon lépp parce que da sànq sa bopp ba pare sànq ni ñi di woote rek lu ne nga wax lu ne nga wax dara du ci dëgg baaxut waaye waxtaan sa digganteeg sa mbokk fenal ko en jégul ci baat bi wax ko lu dul dëgg loolu it loolu bakkaar yi gën a màgg la bokk nga ñëw rek ko diw nanga ref mu ne maa ngi fi yaa ngi si jaamu si jaamu yow de wax dëgg yàlla moom ku baax nga nangam nangam incha allah fan yii danaa am lu ma jox dara tuus yow ko dara fan yii danaa ñëw si que seet si suba rek danaa ñëw incha allah suba dara tax benn ngant nag laa wax <coughs> bëri am ngant ngant moom ngant la waaye moom benn ngant loo ko waxee suba danaa ñëw te xam nga ne doo ñëw Bakar mag la dem jël àll jàmbur ñu wax nga waat na jëlook ko billaay jël ma dara te wóor na dafay narkat moo ko jël de boole si nar nar wa moo gën a moo gën a màgg sàcc ga kon fen ci bàkkaar yi gën a mag la bokk parce que fen mooy sànq àddina bu doon ñëpp dëgg la wax bu yàggee lu bari jóge fi nit ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk moom dafa bëgg yonent bi dénk ko mu mu ko fen waa ji da doon sàcc doon jaaro doon def naa nga waaye lu mu bëgg def rek xalaat ne bu ma demee yonent dana ma laaj të të të bu ma ko waxul dëgg fen mu ba loolu dem na ba ba bàkkaar yëpp ci bàyyi fen su fekkee dëgg rek ngay wax boo sàccee bu ñu waxee rek naan maa sàcc boo defee lu bu ñu waxee nga ne maa ko def te loolu rus nga ko kon boo miinee wax dëgg da nga dem bas këram dootoo defati musiba moo tax bokk si bàkkaar yi gën a mag seede lu bon it noonu la mel ci bàkkaar yi gën a mag la woo diw sàcc na àllu diw ñu dem tribunal yow nga ñeme yàlla ñeme yàlla ne sàcc ko moom jëlul si dara dañ ko tuumaal rek dara du si dëgg man fekkee naa lépp kër yi ay feni feni bëri ñëw seede loo xam ne wóor na leen du dëgg wala diw nee na moo moom àllu diw jële yow wóor na la moomu ko nga dem tribunal jàppale ko moo ko moom moo ko jëndoon maa fekkee ba mu koy jënd kayit yaa ngi nii te dara du ci dëgg yonent neen loolu ci bàkkaar yi gën a màgg la bokk nit sax boo demee ba ñàkk fayda bay moo yàlla fexeel mooy yàlla sa intérêt bopp waa jàmbur loo ci mooy yàlla hmm? Hmm? mooy yàlla sax benn baaxul si waaye nag ki gën a ñàkk sax mooy ku sànq àllaaxiraam ngir àddina keneen yow li ngay waxal waa ji wóor na dara du ci dëgg nga sànq sa àllaaxira ngir àddina waa ji baax loolu foog nga ne jàmm la ñàkk fayda rek mooy sànq sa àllaaxira ngir sa àddina baax loolu rek mooy ñàkk fayda rawatina nag sànq sa àllaaxira ngir àddina keneen baax kon waxi nar ak seede nar ñaar yëpp yem benn baaxut waxi nar nag moo gën a Fama Zala dañu moom yonent bi yu kariruha di baamu baat boobu ndax baat boobu lu yàqu si xeet bi moo ko yàq mooy wax ju dëgg ak seen lu du dëgg lu yàqu ci diine wax lu dëgg a ko yàq waaye ñaareel li yàq ci mbiru àdduna rek seede lu du dëgg moo ko nit ñi dëgg rek la ñuy seede dëgg rek la ñuy wax nit ñi danañ jub danañ baax danañ ragal yàlla te tamit tooñ gi dana wàññeeku. waaye seede nar rek ay nar yoo xam ne wóor na lii lii lépp ay caaxaan la nga yow nga ne nga ne danga ko dëggal fu ne nga dem jëlee ji wax pour dëggal ko fa ma zaala dañu di kari waxaat di baamu baat boobu naan ala wa qawlu zuur ala wa shahadatu zuur hatta qulna ba ñu wax laytahu yellanti kon moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu noppi baat bi daf ko téye di ko waxaat baat bi ba mu wax dafa toog xam nga ne bokkaale yàlla moo gën a bon waaye lii moo gën a garaw seede mboosóor ak waxi fen ak mën a yàq ak mën a yàq moo tax yonent bi dañu ba ñu wax baat bi dafa jug toog te dañu di ko baamu naan loolu ci bàkkaar yi gën a màgg la bokk di ko baamu di ko baamu di ko baamu ba saxaaba yërëm ko yërëm ko mooy bëggoon mu noppi ndax noppalu parce ni mu koy waxee ñoom saxaaba yi moom bu yónni wax ba yëg ne ba yëg ne am na lu ko métti rek ndeysaan seen yaram dafay daw ñëw waxuñ ne dañoo bëgg mu noppi parce que li muy wax dafa bëri déedéet dañoo bëgg mu noppi parce que seen yaram daw na parce que xam nañ ne mu ngi am lu mu yëg te ñoom bëgguñu yonent bi lu toll ni pusa xusi ko ñoom lu toll ni pën bën xusa pusa bëgguñ mu xusi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax duñu yàq mbiram mukk ñun kay ñooy ñëw fii bu bi ñëwaatoon buñ ko mënee xasaf sax ngir suñ mbir baax danañ ko def waaye saxaaba yi ñoom yonent rek lañ bëggoon moo tax ñu ak ñoo jariñee ñu dund ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi nekk ci njubam yonent bi ba génn àddina yonentu gërëm leen ak ñoo jariñee boo demee àlla xalaat da du dara du tus yonent ne annaasu niyaamun fa maatu intabahu nit ñi dañuy nelaw buñ dee ci lañu door a yeewu xam nga ne kuy nelaw si gént rek la nekk xoolal li nga nekk nii yaa ngi yaakaar ne lii mooy dëgg yonent na la lii ay gént la war ngaa seeti ko war ngaa xoolaat lan mooy dëgg de li nga nekk nii fii ñu nekk nii toog nii ñii nii yëpp da nga jàpp ne yaa toog nii yaa ngi gis yaa ngi nangam li ngay nekk nii li mooy xaqiqa la li mooy réalité bi fekk lii yëpp ay gént la si nelaw nga nekk boo dee rek da nga ku dee xam ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbiram dëgg la ku dee xam ne lislaam rek mooy dëgg diine ju dul lislaam caaxaan ku dee xam ne topp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo yoonu mucc lu dul loolu neen la caaxaan la yàlla nañ nekk ci loolu balaa ñuy dee yàlla nañ dund ci loolu yàlla nañ màgg ci loolu yàlla nañ dee ci loolu yàlla nañ dekk ci loolu yàlla nañ dugg aljana ci loolu yàlla buñ teggi suñ tànk si yoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn gende ko su ko def rek rëccu nag rëccu léegi wala suba rek waaye foo rëccu am yàlla nañ si yàlla musal su ko defee xadis boobu rawaaw nett na kon buxaari imam buxaari wa muslim ak imam muslim xadis bii buxaari andi na ko muslim andi na ko mooy xadis bu wér dégg nga in uridu l islam astantu ma tawfiqi illa billah अली तो वक्त वरम्ह वर्क